mu doon maye li nga xamante ni moo di doomam bu jigéen ñu koy ndokkale bu baax a baax a baax di ko nuyu papa ñu ngi leen nuyu bu baax di la bàyyi nga ndekk mbokk internet yi. waaw leen di mhm. eh, di leen siyaare di jàmm. Mhm. Eh, ci bés bu rafet bi ngeen xamee ni. Mhm. Eh, fekk si ngeen ma si. dëgg la waaw mu di leen leen wax bisimilah. macha allah di ñu wax bisimilah rek ci li ñu koy doore mooy sa yëg ci bés bi nga am sa doom yar bu mag nga koy maye tey ban yëg-yëg nga waaw yëg-yëg sant yàlla. julli ci yonent bi sant sama sang bi Serigne Saliou Mbacke eh, eh, di wax ni xale bi maa ko jur ndey Marème Fall tudd mooy suma taaw bu jigéen eh, vraiment maa ko jur ci farata ak sunna mu nekk xale boo xamee ni xale bu yaru la ñu yar ko moom tamit ci daaray Serigne Saliou yàlla suturaal ko mu jóge ci daara ji jàng ba am niveau intellectuel bi mu am tey yàlla suturaal ko Euh, am ku ko bëgg di jullit di taalibe Sëriñ Tuubaa euh, ñëw ñaan ko ñu may ko ko ci farata ak waaw mu nekk xale boo xamee ni daal suma doom la daanaka bu ñu tàqalikoo daal euh, day fekk ma dem Màkka wala moom mu dem vacances Italie waaye mosuñoo tàqalikoo benn yoon te mu nekk xale bu ma déggal te li si ëpp solo te gën maa neex si moom alxuraan bi mu jiitu ci moom mm-hmm. eh, sori na ci loolu mm-hmm. eh, ba yàlla defal ko ci lim ko ci defal mm-hmm. kon tey du ma def lu dul eh, sant yàlla bu ñu demee tey ba tey mu am bis bu toll nii tey nga xool tey opposition ak pouvoir yëpp daje fi dëgg la sama xol sedd na lool su ma toogee ba jàkkaarlook waa Pastef yi fi ñëw tey ak teraanga ji ñu fi indi vraiment mu nekk lu lu lu lu lu sedd xol Euh, nga xool tey couche yëpp ñoo fi ñëw. Mhm, mhm. waaw tey bi ma duggee si jàkk ji. Mhm. wax dëgg yàlla suma yaram daw na. waaw euh, waa jàkk ji sax reconnaître nañ ni. may nañ fi sëy ba tàyyi waaye mbooloo mu toll ni mosu fee am. kon tey bu fi amee rek. lu euh, ma def lu sant yàlla. ak di sant population Guédiawaye. rawatina it population Sénégal. waaw rawatina population Sénégal muy kàddu yu am solo waaye comme ni nga ko waxee rek tey gis nañ témoignage bu nekk ci ñi nga xamante ne ñoo di famille bi relation ak. Euh, Bougazelli ak famille bi parce que wolof na naan nit su baaxee ay mbokkam ñoo ko wax te dégg nañ kàddu seede waaw xam nga àdduna moom dafa gàtt mhm. euh, te euh, suñu sang bi Serigne Saliou daf ñu daan wax naan mhm. lu waaye def lu dul lu baax perte na ko mhm. ba tax na ñun suñu cër yi suñu borom dimbali na suñu ba lot mënuñoo def lu dul lu baax te dëkk ak ñoom seq ak ñoom ay teraanga seq ak ñoom jàmm ak salaam tey moo waral tey kàddu seede yi fi jub yëpp mu nekk loo xamee ni tamit lu may lu may rafetlu la mhm. euh, ñoom nag ñoo baax mhm. tamit xam nga wax sa mbaaxuma maram du wàññi sa mbaax dara mhm. euh, bu fekkoon ni dama dëkkoon ak ñoom andi woon beneen euh, taxaw beneen taxawaay ñoom it beneen taxawaay la ñu am waaye yàlla dafa ma surtout yàlla dafa ma nattoo man nitu daara laa yàlla nattoo ma mënumaa def lu dul lu baax ndax si loolu lañ ma yar te loolu laa xam dëgg waaw moo waral tey seen témoignage yooyu yëpp uh-huh. moo war a tamit seen teewaay uh-huh. tey ñi fi ñëw ñëpp sama xol sedd na uh-huh. ndax dem naa ba benn moment boo xamee ni sama yaram ndaw na waaw parce que am na su loo xamee ni foogu ma ko woon te am na fi te loolu c'est rare nga koy gis kon donc def lu baax rek moo am solo rawatina say dëkkandoo ndax dëkkandoo mooy léeg ndax suñu borom li mu li mu bind doomu aadama ko ci gënal te ñun yàlla daf ñoo dimbali ba nga xamee fonk nañ doomu aadama lool. Mhm. waaw looloo waral tey eh, li fi xew-xew. li fi xew-xew fii ah, ci cadre dëkkandoo yooyu noonu dégg nañ tamit ci ñi nga xamante ni ba tey ñoo di waay jàkka ji ci lu ñu xamul woon ñu bëri ci Touga dante ne da koy def di ko nëbb mbirum social bi nga xamante ne fasal nañ ko loolu ci yow. waaw xam nga eh, jumaa ji. Mhm. yàlla dafa def man fa laa dëkk. Mhm. fii ñu laa juddoo fa laa yoroo fa laa màggee. Eh, yàlla dimbaluñu ñu ñu toxul ñu fii. fekk ñu dem daara ñëw fekk suñuy waajur ñu nekk ak ñoom ci anam bu rafet mhm. eh, jumaa ji biñ koy commencé tabax mhm. dama amoon yéene boobu laa gën a nekk ndaw mhm. eh, te boo xoolee jumaa ji su ma juumalee ma Abdou Aziz moo ubbi woon jumaa ji yàgg moo teg moo tegoon première pierre bi yàlla def ma amoon yéene eh, def ci jumaa ji mu yegg waaye booba fekk na maa ngi doon tuut tànk buñ ko daan liggéey ma daan ñëw bokk si ñu daan gas ak ñu daan tabax yàlla suturaal ñu nag ubbi ñu ba am lu mu ñu dénk ñu jël suñu alal def ci moo tax keroog li ñuy wax ñoom li ñuy wax ni keroog bi ñu jumaa ji pare ñu bëgg koo karole fekk ñu may leen ay moquette ñu ne mokket yi buñ ko lalee si jumaa ji jumaa ji moquette yi dana yàqu il faut ñu karole fekk bisu àjjuma la maa si biir jumaa ji julli am su ma benn wëlëre bu ma gis si biir jumaa ji daal ne Cheikh Imam Cheikh Gueye ah Gueye Bougazelli de mi ngi si biir jumaa ji mm-hmm. ci la Guèye ñëwee ci man na ma damaa bëgg ñu karole jumaa ji ñu siy ñaan dimbal mm-hmm. ma ne ko jumaa ji ni mu toll lu muy rëy rëy rëy mm-hmm. lépp danaa ko karole yàlla suturaal ma eh, ma laaj leen karo yi ñaata la ñu ne ma karo yi un million sept cent cinquante mille ma yëkkati un million sept cent cinquante mille jox leen ko ñu karalee ko jumaa ji ñu demee taay ba ci ay ay fan yu néew am ku jóge woon Arabie Saoudi ñëw andi rajo yi mm-hmm. ne dañuy dañuy jaay ay rajo te bëgg nañu ay rajo yoo xam ne fu waaye toll di ko dégg mm-hmm. te rajo yi gis nañ ni baax na te waa ngi leen koy jaayee un million sept cent mm-hmm. ma yëkkati un million sept cent jox leen mooy rajo yooyu ñuy wax ba ci morgo bi bi ñu demee ba am problème climatiseur ba ñu ma ko waxee ci laa dem andi climatiseur ñu monté ko si mhm. te loolu defuma ko woon sax pour ñoom ñu di ko wax ndax yàgg na loolu loolu loolu dama ko defoon ngir jaamu ci yàlla mhm. waaye ñoom seen mbaax moo tax ñu di ko wax waaye daal mhm. li ma mën a xam daal mooy àdduna amul solo te comme suñu dund gi dafa gàtt du ñu def lu dul profité si di si jaamu yàlla moo tax suñu dund gi fas yéene ñu tooñ def lu naqari nit doomu aadama fas yéene wuñu wax lu gaañ doomu aadama waaye fas yéene def loo xamee ne dana jariñ doomu aadama mm-hmm. tey it jàppale it doomu aadama yi mm-hmm. si duñ daal si loolu la ñuy dox mm-hmm. waaw moo waral léeg-léeg samay su may yëngu si wàllu politique fii sax day day yomb ci man <laughs> waaw day yomb ci man gis nga bi ma bi ma toogee eh, ñoom ñëpp da yëf yi da leen naqari waaye jamono yi yëpp ñu may soññ sax ma leen waaw toog leen dafa am lu may xaar rek xam naa yàlla mën naa def eh, may commencé waat sama yëngu-yëngu. incha allah waaw te léegi rek bu soobee yàlla. Mm-hmm. incha allah rabbi incha allah rabbi yaakaar naa ne yooyu kàddu kaddu yu am solo la ci nit ki nga xamante ne saa su ne askan bi dañu koy faral di gis wala ñu koy bàyyi xel ba taxit kaddu seede ñu mën nañ koo dëggal ndax dañuy déggoog moom ci lu bëri muy nit bu baax koo xamante ne dañu koy ñaanal bu baax rek suñu borom guddal fanam ba mu mottali li nga xamante ne aussi moo di yéeneem waaye ginnaaw loolu nag foog ñu nag li nga xamante ne moo di politique ndax ku xam xam sa diggante ak ki nga xamante ne mooy le président Macky Sall ji tension bi bëri na loolu ci réew mi naka nga gisee bruit bi ci réew mi. waaw xam nga euh, politique léeg-léeg mm-hmm. yàlla dafay def yëngu-yëngu day am mm-hmm. waaye après xam nga guerre mondiale sax si waxtaan la mujj mm-hmm. waaw mënuñu see wax lu dul yàlla def ci réew mi jàmm ñaanal ñëpp jàmm euh, xel yeeg xol yi tension bi wàcc euh, kenn ku ci nekk nga ne ci dal li war a am am waaw politique nag léeg day am nu muy nu muy nu muy tëddee am lu muy laaj waaye man politique li ma ci xam mm-hmm. euh, soo koy def da nga koy def ci cadre bu rafet daal mm-hmm. cadre boo xamee ni daal doo doo doo blessé nit ki mm-hmm. waaye nag léeg-léeg tamit day toll foo xamee ni dafay laaj euh, rigueur waaw mais daal li ma ciy wax daal mooy maa ngi ñaan daal Sénégal jàmm am ci waaw yàlla si yàlla def jàmm euh, comme que commencé guma activité politique bëgguma cee sori waaye xam naa ne daal ci fan yu néew. Mhm. dinaa commencé sama yëngu-yëngu. Mhm. waaw mais du ñàkk aussi tamit ñu laaj la ci actualité bi nga xamante ni am na keroog ci procès Ousmane Sonko doxoon ak Mame Mbaye Niang gis nañ li nga xamante ne moo amoon ci mbir mi. Mhm. ban jàngat nga ci am. waaw xam nga jàngat bi ma ci am mooy euh, Ousmane Sonko euh, euh, dafa am lu mu tuumaal Mame Mbaye yàlla def Mame yóbbu ko ci yoon. nañu bàyyi yoon def liggéeyam rek. waaye man de bu ma sañoon sax. su ma mënoon ñaan maam mbay mu baal ko sax ma bëgg maam mbay mu baal ko waaw ndax àdduna amul solo daal waaw dañuy politique nag mais am na si loo xam ne nii euh, jaru ko waaw àdduna amul solo waaw c'est-à-dire Nabi Ousmane yàlla def man ji na ma teraanga xam nga teraanga ji mooy lan ndax am na suma doom bu gaañu mhm. mu bàyyi activité am yëpp ñëw jaale si ma mhm. nekk ak man lu yàgg comme samay sama soxna waa Casamance la mhm. euh, ba yàlla def na keroog bi waxtaan jubee am na ay ay ay mbokk yu fay yu jege entre ak ak moom ak samay soxla kon kooku jàmm rek laa koy mën a yéene te jàmm laa yéene doomu aadama yëpp waaye daal euh, bu ma sañoon daal lépp ñu def ko ci dal daal lépp ñu def waaw lépp ñu def ko ci dal mhm. euh, li xamante ne moo ko arrivé keroog ak yoon ñu toj vitre ñëpp naqarlu ko ci loolu ban gis nga ci <laughs> loolu gis-gis bi ma ci am est-ce que xam nga ni force de l'ordre ñoo ñu gën a informé hmm. waaw la police et la gendarmerie. Mhm. information yi ñuy am duñu ko am te lii gis naa ni mhm. lu dimbali Ousmane Sonko la ngir sécurité am. Mhm. lu tax ñoom ñu jël ko encadré ko yóbbu ko ñoom xam nañ ko mais gisuma ni woon nii dañoo jógoon pour gaañ ko wala pour toroxal ko wala pour def ko dara. waaye xam naa ni daal raison de sécurité moo taxoon ñu yóbbu ko. waaw loolu moom mën naa leen ko wax moom. waaw moom daal maa ngi ñaan daal jàmm am ci réew mi. waaw mais dañoo gis ni jàmm ci réew mi ñu bëri dañu ne lenn moo ko a xamante ne moom loolu mën nañu jàmb ci réew waaw troisième mandat moom Macky Sall mënu si gën parce que yoon moo ko may. waaw te xam nga loolu moom daanaka maa ko njëkk a déclaré. en 2017 2018. Euh, après les élections présidentielles. te jàpp naa ni daal. Euh, loolu lañ koy bàyyi si loxo yoon. bu fekkee ni conseil constitutionnel valide na candidat am. te man jàpp naa ni ñun mooy suñu candidat. bu ko defee mu dem élection rek. bu demee incha allahu rabbi man wóor na ma ni premier tour lay jàll. bu waan wax loolu. mais ak situation bi fi mu toll nii parce que dañoo gis ni la majeure de partis tey bu doon président majorité la amoon ñu bëri dañoo gis ni jamono ji minorité lay doxee ci réew mi. loolu loolu loolu yéen xalaatu ñenn ñi la rek. Uh-huh. mais Macky Sall ko gis xam nga ni Macky Sall fu mu génn. Uh-huh. <laughs> leneen la ñuy wax. Uh-huh. te gis nga sénégalais yi duñ ko bëggee. fonk ko xam nga dafa nekk koo xamee ni bon il a beaucoup fait pour le Sénégal. Mhm. li mu fi def moom ñëpp seede nañu ni amul benn président bu ko fi mës a def. Mhm. kon donc ku mel noonu ñun Sénégalais dañu koy soxla Macky Sall mooy suñu candidat. Mhm. te incha allah dina dem élection dana gagné. mais mais mais mais euh, mandat am ñëpp gis nañu ni dafa jeex tamit président. waaw euh, déedéet xam nga xam nga loolu dañ koy bàyyi si loxo yoon. mais président def na cinq def cinq sept ans. waaw parce que dafa ndànk. xam nga la loi n'est pas rétroactive. loolu ku ne xam na ko foofu daal laay yem. li si des nag dañu ko bàyyi si loxoy conseil constitutionnel uh-huh. waaw. li des ñu bàyyi loxoy conseil waaw loolu nga gis ni tey mais jàmm ci réew mi nag sénégalais gis nañ ni bu président génnoon ci troisième man bi jàmm ci réew mi mën naa am. président génn si jàmm dana am mu ñàkk ci génn jàmm dana am. Uh-huh. waaye président lu dem mooy suñu candidat. Uh-huh. waaw mooy suñu candidat yaa ñu yeggali rek am nga yaakaar Ousmane Sonko bokk ci candidat yi. na yaakaar Ousmane bokk ci candidat yi. waaw Ousmane parce que ñu bëri dañoo jàpp ni buñ ko condamné du bokk. waaye mais ku la dañ koy condamné ku leen wax dañ koy condamné mais mi ngi si loxo yoon nañu bàyyi yoon continuer def liggéeyam rek hmm. waaw ku leen wax dañuy condamné Ousmane Sonko Ousmane Sonko bokk ak ñàkk bokk ci bokk yemale Macky Sall ku mu demal élection dana gagné loolu moom maa ko wax. na séddoo ko ak moom. waaye loolu ñenn ko wax. Uh, li ñuy tëjee mooy démb gis nañ suñu ay naataango ñoom it ñu ngi doon def seen manifestation ci xoqatal bi ñu gis ni jamono ji gouvernement bu Sénégal mi ngi koy xoqatal waxtaan ak ci presse bi ci li dal Walfadjri ban gis-gis nga si am. waaw ah, Walfadjri suñu télé la télé Sénégal la ah li leen dal ah dañu ah, ñaan yàlla yàlla tegg ko teggil na leen ko waaye tamit xam nga nekk ci plateau di wax lu la neex di wax luy taal réew loolu dafa rafetul waaw te xam nga presse mooy quatrième pouvoir dafa am doole am na su loo xamee ni boo ko defee mën nga taal réew mi hmm. waaw kon donc tey bu yàlla defee tey loolu dal leen ñun ñëpp ñaan yàlla delloo leen seen signal delloo nañ leen kon di ko seen liggéey mhm. waaw ndax Walfadjri moom ay journaliste fa nekk mhm. waaw yan kàddu ngay wax sénégalais ci jàmm ji nga xamante ne moom la ñuy ñaan ci réew ñëpp laay ñaanal jàmm di woo ñëpp ci jàmm mhm. xam ni jàmm mooy njëkk mooy mujj Serigne Sall daana wax ni lu dul jàmm jàmm ko gën te balaa nga koy xam nga ñàkk jàmm